soumettre ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di conseil constitutionnel su ko defee ñu lijjanti la nga xam ne nii moom moo jëm ci mbirum élection yi ba noppi mën a statuer ci lu jëm ci loolu mais bu ñu gisee ñoom ñu insister à que mbir mi ñu xewal ko léegi dafay mel ni nag dafa am benn yéene boo xam ne dafa am ci suuf. voilà mais dogguma la voilà dogguma la mais mandataire wu Bassirou fay Faye di Amadou Ba. Mhm. Euh, moom naka daal dina yëkkati euh, kàddu que ne. Mhm. Euh, ñoom amuñu lu bëri ci doublon. Mhm. et dañoo daal di maanaam jaaxle sax gis ñu ne kat douze mille électeurs kenn inscrire leen ci li nga xam moom mooy fichier électoral bi. ba tax na moom mi nga xam ne que Euh, conseil constitutionnel dafa war a daal di gëstu. Mhm. Euh, fa nga xam ne moom mooy daaf. bi li problème et que nan la nit ki mun ñu mën koo mentionné ci ginnaaw mooy carte d'identité bi que ne. Mhm. électeur la mhm. après ñu gis que ne kat moom nekkul ci li nga xam ne moom mooy fichier bi. Euh, maanaam kon suñu xoolee bu baax a baax ci le cas de Bassirou Diomaye Faye dañoo gis que ne douze mille électeurs yoo xam ne nee nañ kat nekkul ci. nekku ñu ci fichier électoral bi loolu nag nekk mbir moo xam ne ñoom euh, jaaxal na leen bu baax a baax loolu nag ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba euh, mm-hmm. mandataire Bassirou Diomaye fay moo ko daal wax ginnaaw ba ñu vérifier ki nga xam ne moom mooy euh, client am wala leader am ba pare ba mu génnee lii lii la kàddu la daal di xam waaye ñu ngi koy wax depuis le début mm-hmm. cest à dafa am yenn mbir yoo xam ne nii depuis la début lañ ko waroon lijjanti mooy ay cest à yoo xam ne doo comprendre mm-hmm. parce que tey Euh, koo xam ne mi ngi carte d'identité am mun naa comprendre par exemple ñu ne njuumte am na ci chiffre yu ñu joxe. loolu ça peut se comprendre mën nañ comprendre itam euh, xëy na yenn vices yoo xam ne am na ci ay erreurs yoo xam ne mën naa am ci mm. mbirum euh, parrainage mais.

Euh, loolu loolu nag Amadou Ba mandataire wu mandataire euh, Bassirou fay Faye mhm. euh, moo ko daal di addu ginnaaw bu mu génnee mu nekk benn problème boo xam ni mi mhm. ngi bëgg fréquent et aussi ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax a baax voilà Awa Ndiaye mi ngi laaj Bassirou Diomaye fu mu toll moom nag deuxième tour nga daal di euh, génn moom euh, Bassirou euh, Diomaye Faye moom li ndax dafa daal di maanaam la nga xam ne war na ko mën a mottali mi ngi toll ci quatre mille. Mhm. quatre mille deux cent dix neuf la war a mottali ngir matal ndax quarante mille la daal quarante mille la daal di validé. Mhm. quarante mille douze parrains la daal di am moom ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye fay que quatre mille deux cent dix neuf la war a dolli neuf régions la daal di valider moom Bassirou Diomaye moom i lii léegi nag ki nga xam mooy mandataire am di Amadou Ba euh, tantôt mu yëkkati euh, yooyu li euh, kaddu ba léegi rek dañuy daal di delluwaat fa nga xam ne moom mooy Cour suprême parce que jamono ji bien vrai que ne audience bi daal dinañ koy surprendre daal dañ koy suspendre xam naa ne ci kanam tuuti rek dina yi ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel mën ngeen dugg ci ligne bi euh, ci 77 227 12 12 ngeen daal di woot yi wax li nga xam ne rek moom ngeen a xalaat ci euh, jamono ji situation bi nga xam ne euh, moom moo fi daal di nekk ça soit ci cour suprême. procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko wala tamit la nga xam ne moom moom am foofu noonu ca conseil constitutionnel ci mbirum vérification parrainage yooyu la ba léegi rek mbir ma aussi ñu daal di leen di xamal wala ñu daal di leen di fàttali. ana yan candidat tey euh, ñoo war a euh, jàll ñoom la ñu war a vérifier ginnaaw ba ñu vérifier ki nga xam ne euh, ci suba si ngoon gi aussi tamit tàmbali nañu ko ñu daal di leen di fàttali rek candidat yi nga xam ne war nañoo mën a vérifier seen ay na ci cet après midi ki nga xam mooy docteur docteur na Diouf moom moo ci daal di toftal su paree nga Ndiaye Thierno Sisi Hamidou euh, Thiaw Ibrahima Sall Cheikh Dieng ak ki nga xam ne moom mooy euh, Mouhamadou Fadel euh, kone ñi nag ñoo ci daal di des ginnaaw ba Amadou Seck Diallé Abdoura Abdou Khadir Sall aussi ak Bassirou Diomaye Faye docteur Abdourahmane Diouf xam naa ne yàgg dara moom itamit bosom dina daal di génn ñu mën a xam ban tànk aussi lay daal di taxawee mais ba léegi rek mën ngeen dugg ci 77 cent 227 12 12 ngeen dugg daal di wax euh, seen xalaat euh, ci euh, bii li mbir ak ñàkk kóolute bi nga xam ne rek avocat Ousmane Sonko yi am na ko ba ki nga xam ne sax moom mooy Merced Ladifu moom itamit daal dinay plaider moom la mu xamle mooy que mbir mi politique daf ci daal di rax maanaam mbirum politique dëggantaan moom moo nekk ca li ba tax na sax ma ngay doon woo juge yi à rek ñu bañ a accepter dugg ci li nga xam moom mooy langue politique parce moom apo politicien la te xam na bu baax a baax ne yenn saa yi dañuy teg ay ndëgg sërëx euh, yoo xam maanaam ndëgg sërëx yoo xam ne dañ koy tegal euh, magistrat yi et que euh, depuis dix ans di Pastef ma ngay dund waaye tamit ma ngay dund li nga xam mooy ay persécution ñu ngi leen di teg lu nekk teewul ñoom ñu continuer di supporter yi nga xam ne moom mooy yooyu ay coups bas yi nga xam ñu ngi leen koy def et mu ngi xam que ne destin wu Ousmane Sonko moom moo ce n'est pas waaw ce n'est pas le destin d'Ousmane Sonko qui est en jeu ngi xam ne que ne nekkul euh, destin Ousmane Sonko moom moo nekk en jeu mais le destin wu euh, toute une euh, moo nekk li nga xam ne moom mooy en jeu nag la daal di xam ne et aussi démocratie tamit dafa nekk li nga xam ne moom mooy en nag ki nga xam ne moom mooy maître Seth Léthifou moo ko daal di xam li que ne ab machine rek la ñu daal di teg ngir daal di éliminer ki nga xam éliminer ab candidat éliminer ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne peuple bi ñoom ñoo ko daal di bëgg waaye tamit dañ koo daal di aimer benn clan taxaw temb ngir éliminer ko loolu nag euh, mu nekk ab mbir moo xam ne moom ki moom Me Ciré Clédor Ly daal dina koy xamal que ne vie politique sun ko jamono ji dafa nekk en jeu et que nekk na entre euh, entre les mains du juge loolu nag la daal di xamle moom Me Ciré Euh, léegi fu euh, yile kàddu nag la daal di yëkkati maanaam moom daal comprendre na wala la nga xam ne njort na ko rek mooy que euh, mbirum politique la ñu dugal ci mbirum ki nga xam mooy Ousmane Sonko lii dañ ko daal di teg juste rek pour écarter Ousmane Sonko à ce que mu bañ a bokk ci élection présidentielle yi. et que mi nga xam ne que ne nekkul ne maanaam Ousmane Sonko moo nekk en mais nation bi moom moo nekk en jeu. voilà xëy na bu ñuy wax mbirum écarter candidat. bu ñuy wax sax tey ni que voilà dafa am une volonté euh, ngir écarter candidat Ousmane Sonko dafay mel ni lu bees la alors que loolu ci logique boobu la ñu nekk depuis des années et gis nañu euh, ay pexe yoo xam ne dañu koy teg tout le temps ngir xañ Ousmane Sonko mu mën a bokk ci élection présidentielle donc loolu defe naa doonu lu bees et que nekkul tey lañ koy euh, soog a gis. voilà am na ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jëlee